Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàttee la cloche de notification bi de ngir bañ tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi et maintenant. bon visionnage. man lenn moo ma jaaxal ci film bi man lenn moo ma jaaxal mooy moom moom laa ci gisul mooy joor fan ko waxee ni ko da nga ëmb ak maa joor fan ko waxee ni ko joor dafa ëmb man loolu laa bëgg na gis te man daa mel ni mu gisul wala nu mu fa demee noonu ndax war na noo waroon na noo wane fan ko ko waxee ñu ak ni muy réagir rek noonu. laay ñu fay ci loo nekk eh, sëñ Ibrahima waa kontaan ci si nagaay nag génn nag ñu def peloo ni waaw kay waa man mu jàngatee théâtre bi moma taarama taara pour man dina changé ndax tey moom nim mu rek pour man moom dina changé waaw parce que moom kontaan na ndax muy yaakaar ni sët sët bi ko jóor ëmba rek kontaan na ci noonu bu sukkandikoo ci loolu rek xëy na dina changé tonto Birahim nag moom dafa war a dajale famille bi ñu waxtaan. mu wax leen dëgg bi yëpp mais nëbb bi si boppam essane moo fi jeex essane mu nëbb moom jeex na fi waaw ay tade moom kay mu toog kër mama bana mooy jàmmam parce que bu ñëwee moom taaram moom day bàyyi joor ndax gis nga ni mu sonalee woon yaama essane ba joor ñëwee dafa waxatu sa waxu yaama teg joor pression boo xamante doo sax comprendre mooy loolu na toog rek na toog kër mama bana moo gën moo ëpp jàmm essay moom jàmm rek la war a wax moom essay moom ci jàmm rek la war di dox <laughs> waaw moo tax beneen bi des tamit comme li nga wax noonu léegi dëgg la euh, gis nga joo bu maajoo gaawul dara day jël téléphone wii fee ko gis ci fata yaayam yi bu boobaa nax dina ko xam te waxuñu ko te boobaa day jàpp ne xam nga joo dafa gaaw ci ni deen bu dafa gaaw ci loolu beneen di def Pape Birahim Ndiaye dafa amul dafa mel ni dafa amul sens dafa bokk ci nit ñi am amul sens maanaam fi mu ne secret yi muy nëbb da koo bëgg di ko wax ba benn di ko jéem a ndànk-ndànk mais bu amul sens yëpp la ñuy yëg ban te li te gis gën a doy waar mooy secret yëpp ginnaawam lay feeñee tey jii ne doomam bi ci ginnaawam la feeñee doomam boobu xam nga da ko doon nëbb doomam bi ci ginnaawam la feeñee doomam bi dafa ñëw ba ci biir këram fekk ko fekk ba ci biir këram la feeñee ndax euh, Rama Diop Rama Diop moo ko feeñal beneen bi des di euh, yaay jooju doon nëbbu di ñoo ko feeñ na te am na yeneen secret yoo xam ne dina feeñ ginnaawam loolu kay moom niñ ko waxee sa xamee woo ko noonu. Euh, Matar euh, ëmbub joob bi ci hôpital bi la ko yéege mais ëmbub joob bi Rama Diop moom moo ko moo ko wax Maajo bi Maajo dugg si bi boo xoolee bi muy juwam moom bi mu ñëw di daw di ñëw ba ñëw naaw lan moo xew ci la ko tata Rama Diop daal di ñëw fekku ci biir néeg bi di ko joob mi daa joob daa ëmb médecin bi ne daa ëmb. ci rek ko wax nuyol bi noonu quoi waaw loolu loolu loolu la fa demee waaw maa ngi siyaaraat di béggee ñëpp <laughs> di béggee bu baax baax seen mata maa ngi lay béggee waat kontaane la bu baax baax baax di béggee awa siise bu baax baax baax awa nge ngeen di ñëw fi dàqu sant awa munoo bàyyi munoo bàyyi bu nit ñi dee def débat ngay wubee si suuf munoo bàyyi loolu nga am ñoo fi dàqu sant sa sant bi fu mu toj di béggee bu baax xadi tamit xadi ñu ngi koy béggee moom di béggee Faat Kiné bu baax sama jigéen boobu di ko kontaan naa si ah Faat Kiné mbaalu sa xel daa ne ci mboq mi mbokk mi kat moom mooy loolu ah daa daa daa daa nu mu <laughs> daa yomba lekk lool looloo tax sax waaw ñu ngi si jéegulu de yéen maa yéen ci jàmm ñu leen di waaw épisode tey bi amul nu mu fa neexawul mais Fatou Kiné comme niñ ko waxee dëgg la ah, Mama Diop moom bëgg na lool tey mais est ce que mbégte mi dina yàgg <laughs> kontaan te gi yaakaar naa du yàgg de le mu dellu ci maninam lee mu dellu ci maninam di defante yow mom loolu mom loolu mom do la ci mom motax mu demee noonu waaw ay tade mom kay mu tok keur mama banna moy jamam parce que bu ñëwee mom taram day baye joor ndax gis nga nim mu won yama yaama instant ba joor ñëwee dafa waxatu sa waxu yama teg joor pression bo xamantene do sax comprendre moy loolu mom na tok rek na tok keur mama banna mo gën moo ëpp jàmm essay moom jàmm rek la war a wax moom essay moom ci jàmm rek la war di dox <laughs> waaw. ah man na noo jubóo de man na noo jubóo ko may jàmm waaw ah, ndax fu mu toll nii kontaan na ci moom daal Pape Ibrahima doom jum naa da ko fi indi ayta laay xalaat bu ñëwee mu tàmbale wujjee ak ayta ayta moom xam nga ni moom mère bi moom da ko supporté ci kër gi moom mu fi ñëw doo nga nangu ko. waaw sëñ Matar waa li nga wax tamit noonu la parce <laughs> que moom pour moom boo waxee rek maajo dina ñàkk alal bi te xam nga may Maysa moom mi ngi def effort pour xam kan moo jël alalu maamam moom pour moom boo waxee rek alal ji moom dem na loolu loo tax mais nag mënoon naa toog rek wax parent moom joor moo joor moom essay fa joor mi ndax dégg mi ngi koy wax maajo naan ah lan moo waral changement bu gaaw bi mais xam ne rek. lim am sëtam moo tax waaw. Eh, gisoo joor joor joor tey daa tiit bi tiit dëgg la de bi mu gisee maire bi di ko topp tey daa tiit barki yàlla tiit la xam naa ne moom ma jaaxle nag ne koo xam ne xool la sax nangu tey mu ñëw sa yaram nii moo tax joor tiit na de. non Pape Birahim moom li muy xalaat moom mooy bu waxee dëgg gi rek léppam yàqu te moom demewul noonu bu waxee baat waxee li fi ne mën naa bañ am problème waaye ni kay dana ñaaw moom ni wala lim amoon lu bari da koy ñàkk nee nag moo ëpp jàmm ci moom comme fi mu toll nii majoor mi ngi nii nangu ko wax dara nangu bu doon am na ku muy leeral sax nga ne waaw waaye nangu ko wax dara fi mu nii yëm xam yëpp daa dem ba tourné ci ginnaawam ba xam loolu yépp te xam ngeen loolu tamit mën na naa ñàkk donte maajoor lay waxal wala kenn sax mën na ko wax. nga xam ne yéeyi nii bu ñëwee ba yegg si moom dana xam ne xamal na ko dana xamal ni daa am luñ ci jublu moo tax waxu ko fay nan la ale sa na nga def baa ci jàmm baax siyaar nañ la lu bëri waaw am na ci solo trop ma mataar la waaw waaw njaay man moo ma jaaxal de moo tax bu bu kee bëggee ñëw dugg ci man daf may jaaxal trop mooy kooku weele woon joor bu ñëwee bëgg cee dugg am fi doom man daf may jaaxal trop moo tax man ma gën a gëm ni doom maa joor lépp benn famille bi la tey dañu dañuy dañoo xamante rek dañoo xamante wuñ rek te damay xalaat moom bu demee bay kaas ba ba bëgg a xeex alal ji pour xam kan moo ko yor balaa booba mu koy xam day fekk paa bi am ci moom du rëy ndax day bëgganteeg doomam waaw mën naa am balaa booba fekk mu may ko doomam yenn wax xam nga doo ko mën a def moo tax may xalaat ni bu ba xam ko ba koy laaj it du ko laaj comme bu njëkk ni mu doon rayante wala xët-xët ji doon àndal di ko def damay xalaat ni boobaa du ko def. bi des Pape Birahim Pape Birahim Ndiaye moom téléphone bi mu doon xool te te théâtre bi jeexa foofu téléphone boobu téléphone am la wala téléphone u maa jox ndax dafa mel dafa gis vidéo bi photo bi ñu envoyé bi ñu envoyé Anta daa mel da koo gis dama xamul ci téléphone jo ci téléphone la ko gis wala téléphone Maajo bu fekkee ci téléphone Maajo la ko gis ma xam ne bu fekkee bi mu doon dem moom feeñ na ndax Maajo na ngeen xam ne lépp lu yenn ci moom dina fanaan ci joo loolu moom dama leen koy bàyyiloo xel bu baax a baax a baax beneen bi des Maysa day am problème xam nga am problème moo di ni comme comme mi doon bëgg a def enquête ci wàllu alalu maamam bi te xam na ne ak ki nga xam na ne alalu maamam bi mi ngi nekk ci loxol Pape Birahim Ndiaye Eh, Pape Birahim Dia xam ne ni mooy papa ay Aïda est-ce que moom dina dina continuer ci enquête yi wala day yem foofu xam nga loolu tamit ab laaj la boo xam ne ma koy laaj waa groupe bi di leen ko laaj ñëpp daal waaw day continuer enquête bi wala da koy def suuf et puis Madior ak Dior kon su si nekk da nga am sa diggante doomu ndey ak doomi nijaay la ak doomi bàjjan ndax Madior doomi nijaayu Dior la doomi bàjjanam la Dior tamit aussi ci côté googu la demee ci Madior doomi nijaayam la doomi bàjjanam la kam que Pape Birahim Dia moo moo moo yaayu Dior bokk papa. man daal noonu laa xalaatee maa ngi leen di siyaare ñëpp di béggee ñëpp di ko ndàmba épisode tey bi amul nu mu fa neexaw ah man instant bi loolu laay tiit de ndax yaama di tax nee na ko xam nga li ci ëmb ëmb yàgg na lool yaama di mi ngi koy wax rakkam ji moom yaa xanaa ñu def ci di mbir daal moom ba mu bi yàqu parce que li ko maajoor wax nag de waroon na ko mën a nangu de ñu dem réew ma ba mu agsi mu ñibbisi ci jàmm yaa xanaa looloo koy may jàmm de waaye xam naa joor moom du nangu moom ndax mu ngi ci poro scénario bi moom ba léegi nii waaw. asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar yéen ñëpp nam naa leen yéen ñëpp naka ngeen si jàmm def naa ne ay nam bàyyi moom série bi neex na de am lu mu neexee dama jóg daal nee na ndax maa jóg moo ëmbal jóg na dem jàkkaarloo joo wax ko ko xam nga fàtta jàlla mbéj nañ ko ba mu ne nopp bi day liisu. waaw moom de xam naa ne ki du ko gaaw a dóor de waaye bis bis bu ko tuumaalee barki yàlla dañ fa jote te maa leen wax lii Rama Diop mii Rama Diop ëppal na Rama Diop ëppal na ay tana bu may moom na toog kër Mama Baldé parce que fa la jàmbam bi parce que bu nekkee fii dafay sonal rek